Euh, tey nag ñu seet si benn euh, ndaanaan ba nga xamante ne bii nee naa leen lu mu wax ci làmb macha allah bindal ndax téere la ñu koy wax euh, soose nekk coach su écurie Ndakaaru soose maa ngi lay nuyu. Mbaye Babacar maa ngi lay fay di la ziar di la jox sa wàccuwaay. tey ma bëgg ñu def benn waxtaan bu ndaw rek ci combat bi war a am dimanche. diggante tafaatin ak ki nga xamante ne bii mooy Boy Niang ban jàngat nga ma mën a defal ci ñaari sampion yi. waaw combat la boo xam ne si biir combat la si biir combat yi daal mhm. ñaari mbëri mu leen gisee kenn kenn ki gisuma ko woon mais gis naa lañu mhm. la bu nar doy waar sax mhm. waaw bu doy waar lan moo tax nga ne nar naa doy waar parce que ku nekk am lu ngay a dem ak lu la mun a am combat bi boo ko ñàkkee am am am na lu mu la mun a gàllankoor loolu moo tax combat bi doy waar si ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk lan la am ci combat bi ku ci nekk victoire rek moo la arrangé ñoom ñaar ñëpp mais defet mënta ñàkk waaw dafa mën ta ñàkk moom mais ku si nekk parce que kii boo xoolee dafa bëgg yéeg fekk ay magam uh-huh. te kii itam am na lu ko taat am na lu mbëgg a dabu ji uh-huh. muy tafaatin uh-huh. moo tax combat bi day doy waar si ñoom ñaar ñëpp seen état physique gis nga leen nee nga mu euh, nee gis nga leen bu bu yàggul dara ku ci nekk noo ko gisee waaw ñoom ñaar yëpp liggéey nañ lu ñu war a liggéey si làmb ji boo doon xoolee koo koo si xool rek di nga xam ne kii dafa làmb ji jox na ko cër liggéey na si liggéey mais lu si maanaam làmb ji du yooyu làmb leneen la làmb mu nga ñëw indi forme indi lépp mais làmb si biir làmb dafa am ku nekk war nga wan a wane loo xamante ne tey ji da jëme kanam nee nga làmb leneen la làmb lan la maanaam ñoom ñaar su ma ne làmb leneen la parce que Boy Niang mhm. dafa am lu mu dafa am lu mu bëgg si làmb ji Tapha Tine tamit mooy mbër boo xamante ne xëy na moo ko dafa tardé si làmb rek mhm. mais heure bi xëy na dañoo la wax tafaati nag keneen ak keneen la ñuy wax mhm. mais comme que dafa tardé si làmb te kii tam am na fu mu teg bëtam mhm. moo tax ma làmb la si biir làmb làmb la ci biir làmb Boy Niang euh, def test ci biir VIP jàkkaarloog Lac de Guiers combat gis na nam demee mu jëlaat beneen luur ñu bëri ne risque la est-ce que ci waaw risque la sax risque la du risque parce làmb moom garab si kaw mais si loolu boo dëggee risque la daa am leneen lu mu demee dafa am beneen combat bu mu jël si suuf moo tax ñu la risque la côté boobu mooy la mm-hmm. na bii bu na risque mm-hmm. mais dañ naan tafaatin mooy favori booy ñaa mooy outsider te mm-hmm. lamb noonu la baaxoo sa saa su ne mais boo boo dëgg ñu la risque la dafa jël ñaari avance mbaru yu mag moo a lamb ji nekk risque si moom kon daal yow da nga jàpp toll nii Tapha mooy favori ci combat mooy favori normalement mooy favori Tapha Tine mooy favori parce ba léegi bëreegus ak ñoom xëy na kañ la bëreel rek te dafa échoué foofu mais am na ñeneen ñoo xam ne ba léegi booy ñaaw jotee fa quoi ba léegi nii. ñii ne booy ñaaw bëree la am ci combat la am yi dañoo juum foofu. lu kenn dàq ko si làmb ji xëy na tolof tolof moo garaaw rek làmb daa ànd ak tolof tolof mais kenn dàq ko si làmb ji tafaatin ñu ko daan ñëpp xëy na ju waaw xëy na dafa xëy na lu lu waroon am la rek mais tafaatin boo ko topp man mii nga xam ne fekkee naa ko mbapat fekkee ko ba arène man xam naa mun naa wax si mën a bëreem boo ñaa tam boo ñaa même chose mais bun na boo ñaa dàq bëre boo dañoo juum foofu tuuti dañoo juum boo boo ñaa bu dàqee bëre tafaatin foofu ñu ko wax yëpp dañoo juum waaw côté xeex ba tamit boo ñaa xeex xeex boo ñaa bu muy xëy na boo ñaa xeex corps mun naa ne moom la gën a arrangé ko xeex jàppante mm, corps à corps waaw corps jam génn affaire yooyu xëy na moom la gën a arrangé Tapha Tine mën na ko sax mais xëy na moom nu mu ko mokkalee par rapport ak Tapha Tine parce que moom bu muy nekk xale bu ndaw la commencé jàng boxe mhm. nekkoon centre Zaxirat di jàng boxe ma mhm. kooku xam na lu a xeexee mhm. mais mu na la def gis nga ñu mu fa jot a jaar ñëpp da leen gaañ si biir jàppante la leen gaañee boo ñaaw dóor déplacé wu moo ko arrangé mais pas mu jàppante ak waa ji pour xeex ak moom te pour mu daan waa tamit du ñëw di jaamaar ak waa ji da da koy jaay affaire de booy Pikine wala a nax pour daan ko parce que daax koo bëre gis nga ne bu ko naxul du ko daan non non non dafa jënd làmb ji jëndante maayen la ñoom ñaar ñëpp jëndante maayen la jëndante maayen la parce que nekk yaa ngi wax loo xam ne sa morom te xëy na mënoo xëy na xëy na da a nax sa morom rek mhm. mais tap mooy lu ma leer tafaatin moom amante moom tam lu ko arrangé combat bi mooy mu wàccee tànkam dox si kaw booy bi ndànk ndànk a bañ mu bañ a waaxu combat ci ay tànkam direeku direeku mu bañ a waaxu combat amaana Boy Niang waaxu combat bu bëggee waaxu Boy Niang si combat mun na juum mhm. booy mun na ko juumloo parce que bëre la quoi bëre ñoom ñaar Boy Niang mun na na ma waxtaanal bu xeexee ñaari loxo xee ñàkk ci combat bi bu dooree gauche bu dooree coup gauche dóor droite ñàkk ñàkk xam nga xeex am noo koy xeexee mhm. doo tëb di xeex ñaar loxo xanaa parce que lu dox mu wax la loolu xëy na dëgg la mun na sànni gauche bu gee sànni droite mun na juum mhm. dëgg la moo tax xeex bi moom benn loxo la war a xeex waa ji topp ko ndànk bañ a yàkkamti dara combat Légère nag moom la gën a arrangé. Mhm. combat bu bu yàgg Tapha la gën a arrangé ko Boy Niang. lu tax parce xoolee combat yu yu mu dem en Légère yëpp dafa gagné combat yooyu. Boy Niang combat a gaaw si combat am yëpp salaamaaleykum la maaleykum salaam boo xoolee ñu bu ñu mu daan ñu bëri. Mhm. a diire boo amee diire mhm. bu yàggee Tapha Tine la mais bu bu gaawee arrangé na Boy Niang. bu gaawee rek xamal na arrangement Boy la loolu moom maa la ko wax moom. mën nañ xaar dóor mu daanu ci combat bi. combat bi lu ne mun na si am ñaari xekkat ay bëri ak ñaari kat mën na am kaawo. dëggal ma la ñaari xekkat ak ñaari bërikat xam nga loolu moom làmb ji foo ko séntoo rek mën na demee neneen. mën nga ko séntoo si bëre mu jeexee si dóor mu daanu. mu nga ko si dóor mu daanu mu jeexee si bëre. parce que ñoom ñaari ay mbëru ndaanal lañ mais damay bañ ku ne bañ a xeeb sa morom si bë si bëreem. Boy ñaa bu mu xeeb Tapha Tine si bëre bu ko sax xalaat Tafatine kenn dàqoo bëri si làmb ji man farlu ma ak Tafa farlu ma kenn. Mhm. damay analyser nii rek ku ne gis naa. làmb ngay wax ku ne gis naa li nga bëre ku ne fekke naa nga bëre. amaana lu ma seen Tafatine sax sànn ma ko Boy Niang. Mhm. Tafatine dama sànn ay mbapatam mu mbapat lu ndaw ne Assane Diouf ak ñoom ay Balla Gaye ay Saalum Saalum sama kanam. Mhm. ba arène te boo xoolee nu mu dee dee dee Tafatine am na 4 kele yu mu mën a si làmb bu dee am ak yu mu nëbb. ci côté bëre boo xoolee si côté bëre boo xoolee day yenu. day takk day mboot. xam nga yooyu ay ay ay ay kele yoo xam te ne jeexal na làmb moo tax ma ne la koo xeeb si bëre yaa ngi nax sa bopp koo xeeb si bëre yaa ngi nax sa bopp Tapha Tine bërëkat la xëy na nag ñàkkul da amee di nga si diggante boo xam ne ay tolof tolof da wala moo lay xeeb rek mais kuy mbër ku ne hmm. war xam ne waa ji ndaanaanu bëre la te ndaanaan kenn du ko xeeb si bés hmm. nga xamante ne bii mooy bu mag mais euh, gis nañ ki nga xamante ne bii ma la dara hmm. te loo ma may muccal soo xeexee moo xeex soo bëree moo bëri waaw bu fekkee ñun ñaañu ku li nga wax sa morom buñ ko gëmee laa a guddee ah, déedéet déedéet parce que ñun ñaañu ku ne kii ne na ko dama lay wax su ma fu ma la nga waaw waaw te fu ma la awal nii fa ngay jaar xam nga loolu dèjà bu fekkee ñun ñaañu ku ne li nga wax da nga ko a yàgg sax mun non jaay doole sax mooy ko doole ñaari yoon tamit ëppul doole boo ñaar ñaari yoon te boo ñaar moo gën nekk xale bu ëpp doole dem tam xëy na tuuti la mais du ñaari yoon 100 kilos mun na bëreeg 100 kilos mun na bëreeg di kilos loolu du du du du feeñ sax parce que mun na bëre leneen la tamit quoi. Mhm. Euh, ba léegi ñu ngi ci ñu ngi ci biir combat bi diggante Tapha ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Boy Niang bu ñu jàppante ak mi soufflé wàcce loxo génn seen diggante. Mhm. ku ci nekk na runkum ak sa morom ku ci nekk wutali sa loxo ci sa ngeen ba morom lan nga gis. jàppante boo amee Boy Niang na moo Tapha Tine ko jàpp. Mhm. Tapha Tine fooram mu njëkk la jàpp wala mu kor ko xam nga ku nekk ku nekk da jàngat fooram. boo Boy Niang na bàyyi xel Tapha Tine njëkk ko jàpp boo Niang Tapha Tine moo ko ëpp laf moo gën a gudd laf moo gën a gudd wet. mun na ko jàpp wàcc te bu jàppee mun na ko xañ lu bari si biir làmb jooju moom kay lenn moo mun a mu sàcc wàcc njëkk jàpp pare liggéey bañ a taxaw du question dafa war a jàpp taxaw dafa war a jàpp Boy Niang combat bi bu jàppee dafa war a jàpp bëre warul bu jàppee taxaw waa mun na ko indil problème si biir loolu noonu waaye dafa fort si jàppante si jàppale dóor la daf si foram la ñu ngi si gaañ ñëpp ñu ngi si yemal ñu si daan ñëpp boo xoolee ñëpp ñëpp comme jàpp gaañ leen waaw ak keneen ki Elton ak ñeneen ak ñeneen waaw parce que loolu forum la quoi te nit ki forum for nit ki yow a ko mën waa ji xaaj moo ko arrangé combat bi jéem nga njëkkante moom xaaj ko parce que waa gën a boo xoolee moo gën a gudd tuuti moo ko sut te mbër bu la ëpp wet attention mu njëkk la jàpp. wax nga ko sànq combat bu combat bu gaaw moo arrangé Boy Niang Tapha Tine ñëw wàcc ci ay tànkam comme ni nga ko waxee diré ko topp Boy Niang taxaw di ko xaar. Mhm. est ce que nekk problème bi. Boy Niang mun na ko woo si xebam du dëgg si moom boo ko pour waaj a répondre waaj a jóg mu daw def lu muy def Boy Niang comme ay mbër noonu lay demee boo xoolee ne daw arrière mel ni ku la mel ni ku la ragal daw déplacé wu gauche droite pour nga maamu ñëw waaw parce que moom bu tuusee moom bu buggee làmb ji mu gaaw si moom day jéem a fexe tuuse waa ji njëkk njëkk koo tuuse ku su ko njëkkee tuuse ko mun na am li mu bëgg mun na ko am si waa ji mais fekkee loolu amul combat mun na moom trop sa waay si. su yàggee bu yàggul sax loolu ma la wax ni bu amul si combat bi mun na métti si moom trop lu leer laa la wax parce que Tapha tamit parce que Tapha boo xoolee moment bi ñu toll nii am na fu mu tegaat bëtam quoi ñu ko ay moromam romb nañ ko raw nañ tax instant yi nii teg na pëtam foo xamante ne instant yi poy sawaay bon dafa war a ñëw combat bi pour moom dafa war a wane loo xamante tey ji day ñëw jeex day ñëw jeexal combat bi si salaamaaleykum maanaam sax mais ak pièce booy moom tamit mu ngi wax rek dafa day bëri ak bëri pièce boo xoolee say waxam day jéem a naxante ak booy ba bi indi dëggal boppam moom mu mën a def lu muy def te booy bi loolu arrangement am dafa war a nax grand bi pour daan ko te nax bi tamit day ànd ak gaawte mooy lu ma la rek bu bëggee am dara si waaj da koy xaaj day bëri si diggante ndig bi tànk bi mais du bëre si kaw si kaw diggante ndig bi ak tànk yi lay bëre mais du bëre si diggante ndig li ak loxo yi loolu du arrangement am parce que foofu waa ji moo ko fa ëpp atu quoi. Mhm. nga ne bii mooy ko naan waa ji fexe ko dóor ku fexe ko njëkk dóor ku bañ bu dal. jaxase kook ama jaxase kook public bi. Mhm. xam nga bu mag boo ko jaxasee public day bëgg a wane boppam. foofu di nga mën def li nga bëgg a def mais donc loolu defoo ko loolu pour nga mun ko wala xanaa ba ilaa nga nax ko woo ko si loo xam ne dëgg nga mën a daw song ko bëre te song bi mooy lu ma lay rek dafa war a bëri si diggante ndigil ak tànk yi diggante ma su ma ko doon conseillé du si bëre waaw moytu ci waa ji déggul ma la moo ko ëpp laf te tëlewul te cuunewul foofu loolu tax ma looloo tax ma la dina bëri si diggante ndigil ak tànk yi waa ji du cuune ku ko jàppee cuune yaa ngi nax sa bopp boo a waaw bu combat bi da koy yóbbu si beneen combat bi di ñëw jël na avance boo xam ne xëy na dafa jël avance boo ñaaw moo tax ma ne la xam ne si combat bi lay confirmé. ok moo tax mu garaaw te bu si ñaanal moo ko yàlla bu si jëlee leneen lu dul ndam mun na ko indil gàllankoor si combat bële te di nga si bu loolu amee di nga si dégg yeneen boo xam ne di nga ne waxoon naa la ko si. moo tax kon moom ndam rek ko arrangé parce que dafa jël ñaari avance mbër yu mag te mu ngi jëg mu ngi jëm si benn mbëru mag bi te benn mbër mag bi su ko daanee parce que benn mbër mag bi moo bu daanee kooku rek dina ko yombalal ak combat maanaam dina yomb si xelam quoi laay wax si combat bee mu jëm parce que mbër boobu am na mu ku mu ki mu waaj a dajal tafaatin bam si kawam ndam waaw noonu la demee kon moo tax ma ne la combat bi dafa garaaw si booñaa garaaw si tafaatin mais si booñaa la gën a garaaw si booñaa la gën a garaaw combat bi parce que moom mooy xale moom moo bëgg a yegg fu mu grand yi bëgg a tamit quoi kan moo ëppale. waaw si làmb nit ki mën nga ko jékku samu daan la grand. waaw loolu muy demee. mu deme noonu parce que mbër boo fekkee da nga ko rey ba mu dee te ñemoo ko noo daane. ok si nag mën nga jékku mbër mu daan la mën nga ko jékku si mystiquement mu daan la jëli bu rëy nga dem ñibbi naan sëriñ xam nga fekk yow yaa yow yaa ñemoo lu ngay def sëriñ xam dara lu ñu gis rek lañ lay wax yow yaa demul appliquer lu ñu la wax parce que ñemoo waaji mu nga ñëw rek rey mbër ba mu dee nga ñëw def li ngay def dem sa yoon ka dañ la koy wax am na fa mbër yu ko def fii dama bëggul tudd seen tur seen làmb rek mais dañu xam ne kii tey seen làmb la dañuy ñëw def la ñuy def dem seen yoon ba tafaatin booy bi ko njëkk daan dafa wóor ne kii tey bokkul si làmb ji dafa ñëw appliqué si kawam njëkk daan si booy waaw si booy yi wax laa la wax nag de bu ma waaw bu ma dugg si tur si booy yi waaw côté yooyu la rek mais dama la ne ah. boo xoolee booy bu mu wóor ne bu ko wóor ne wàjji bu mu njëkkee xam nga da ngay xam ñun ay mbër lañ bu mu njëgee bu mu lambee waaji xam ne ne waaji tey nekkul si lamb dafa ñëw def li muy def dem yoonam loolu mooy bu la jekkoo a appliquer dem dafa ñoo xam ne waaji tey nekkul bokkul si lamb tey lamb sama lamb la xu baka waaji ku xam waaji keroog ak loo xam ni muy doxee nga xam ama dugg na si gàttam tuuse tuusewaat bu muy ñëwaat dafa ama bu muy ñëwaat ak ku dafa sànd yaram bi ama gis na fii faayang fi mu def exploité faay bi dem yoonam loolu mooy jokkombër da nga koy exploité mais mënoo jëkkumar ñëw si lamb ji lébu doo jëmale suba parce que lamb daa am fu app fu je fu jekku yem si lamb kon parce que kon comme borom fit a neexa ngemb sa waay borom fit moo neexa ngemb mbër yàgg naa nit yàgg naa jekku mbër si lamb fit te daanu ko ñun dañuy dem lamb dañuy xam parce que ragala ma tax du ko daan waaw mun nga mun la mun nga jekku nag ñëw def li ngay def dem sa yoon mm-hmm. waaw soo andi woon Tapha Tine loo koy conseillé man loolu lu ma la rek wàccal sa tànk talal sa loxo booy bi dox si koom ndànk ndànk ndànk amul lenn loo yàkkamti si combat bi amul Tapha Tine amul lenn lu mu war a yàkkamti si combat bi amul lenn loo xam ne jakaay jaram mu waaxu booy bi bés bu waaxoo booy bi mën nañ ko tromper dan ko jëlee bu rëy parce que booy bi tam am na bëre boo xam ne bëre sàcc la te bëre boobu bëre bu dangereux la tamit mooy lu ma la wax rek ku nekk da nga am fort loo mën ak loo loo xam ne lii mooy sa fort booy ñaa ñëpp xam nañ fortam dina la woo si loo xam ne du dëgg génn dem gauche dem droite ñëw si kaw ñëwaat sa kaw tuuti ba nga jóg mu mu def lu muy def boo xoolee ñu mu daan daanante ni mu daan ay ndaanaan lañ daan si loolu daan daan na si loolu ay bërikat la daan si loolu boo xoolee ay man am na ko may am sax dafa ma bett si suñu mu daan waa non moom booy bi bu muy soog bu muy soog a jóg am na dañu nag ay ndaanaan fii daan lañ jël yoo xam ne man dafa ma bett parce que boo may boo jàngaatee combat bi nga xam ne kii PSD bëree àll li non xàllal ñu ko yoon bëri ñu mu war a bëreel bëri nag ñu mu si dafa egsi parce que boo xoolee ñu da ñu mut mujjee daan egsi na quoi ku mujjee daan guy gi la mujjee daan te guy gi bëri nag ñenn ñi si ñooñu. pour ñëw ba bëri la dëgg de ñu naan daan ak daanul par recours la dëgg de amee victoire non. kon kon egsi na quoi. le 19 décembre arène nationale est-ce que nga yaakaar ne Ardo dina liggéey liggéey bu baax. la mun na lu ne mun na si am déggoo ma la ñaari xeexkat ñuy bëre dana dañuy bëre di xeex di xeex di bëre. waaw kon loolu ak coton gu bari ak alcool gu bari sax. Hmm. waaw parce que mais tam mun na bañ a foofu tamit. Hmm. parce que mu ku nekk mun na peesam xam nga làmb mooy lu ma la rek ñëpp mun ko séntoo nii mu demee neneen. Hmm. làmb amul amul calcul. maanaam si côté jële laay waxee quoi ñëpp nañu xam ne lam lamb ji tey day am xeex wala bëre mu ñëw demee neneen nga nga gis lamb joo xam ne kenn xalaatul ne dina métti mu ñëw métti lool. mais combat bi war naa mën a métti si ñoom war naa mën a neex métti war nañu bëre ñoom ñaar war nañu xeex bëre bëre xeex bu amateur yi kontaan. waaw parce que ñoom ñaar loolu ñu woote. Mhm. Mm-hmm. kaddu gu mujj gi nga waxaale ñaari ñaari ñaari mbër yi seen seen côté seen supporters yi. Mhm. gis nañ li xew arène nationale barki démb violence ba fa am. Mhm. combat bu neex ba waroon a am finalement mu jëmul am. Euh, ñaari côté supporters yi ak ñaari mbër yi. ban conseil nga leen di waaw boo xoolee waa Pikine ñooy dalal waa Medina kon ñoom ñoo waroon a woote ja si jàmm si mu la war a njëkkee ba pare sax. parce que tamit dañu wax na dëgg quoi ñëpp ay parce boo xoolee jamono lamb bu njëkk ba amateur dañu leen bokk añ bokk lépp kii faral kële kii faral kële ñu bokk toog tribune te dara du am mais far fan si kële bu mu ñëwee si lamb dafa xaw a doy waar quoi te ñu ñëpp war ñu ñëpp ay nit lañ dañu war a ñun ñoom yi dawal na yërmande xam ne lamb ji bu ñu ko yàq tamit ñëpp lañu ko yàqalaan tamit kon warul am violence violence moom ñun dañ ko mës

dañ lay daan mbaa nga daan mbaa ni mbaa ñu machine ñu dawalante yërmande xam ne lamb sport la sport amul sport amul violence ñoom ñoo ñun ñun nag ñoo si xanaa ñun dama ñun sa laay wax ñoo si a dugal loo xam ne bokku ci te xoolal neexul kenn neexul kenn parce que ñu dem amateurs yi jënd seen billet ñëw toog lu ñu bëre petit combat yi mu grand combat mu demee noonu sa waay ni amul kenn amul kenn waay loolu daa métti ñoom ñoo si perte amateurs yi ñoo si perte kan moo si perte promoteur pertul di jaay nay biyeem jaay nay kotam mais amateur yi ñëwoon pour lamb jooju démb keroog la amateur yi ñoo si am ñoo si gën a am loolu naqar te ñu leen koy jégalu ñun waa monde lamb koy jégalu baax a baax a baax. Ah, kaddu gu mujj gi. nag di ziar sama écurie Fass Ndakaaru di ziar sama rakk Karamoto xam ne moom moo nekk suñu ginnaaw su lu bari waaw ñu bëgg ngeen koy sóoraale si affaire tamit. Karamoto waaw Karamoto waaw ngeen koy sóoraale si affaire yi jëlaale di ko jëlaale jëlaale bagage yi xam ne fii